nga xamante ni gaamal la sumuwaay ay borom tur yu bëri daan nañ ko seet si gaan ko këf di ko yóbbu si ay auberge ñu yàgg ko gis gaamal la sumuwaay muy dugg si ay auberge dafa dugg ak ay borom tur ay saay-saay ñu yàgg ko tëddee ah ba Balla Gaye man la sumuwaay bi muy ñëw di ko takk nante yu bëri naan yée Balla gaan xaa ngaaxa lu tax muy takk booy bi nga xam ni dëgg rekk mujj sëy bi sax yàggul ndax ñii duñu ay sëykat duñu ay jigéen yu baax ñu musuñu nekk ay royukaay yi Sénégal moo nekk dëkku naa fekk rek nga xam ni colossar yi ak cagay yu tekkiwul dara vauriens yi nañuy jël di leen def ay star mais duñu dara man la sumuwaa ji man de lii de bertuma si moom gaa man la sumuwaa yi saawaay ñii xaalis jaral na leen lu ne waaw man la sumuwaay xaalis jaral na leen sax ñu jouer porno même si yàlla gi dem faal nga xamante nii suñu papa ji yàlla na ko yàlla xare àjjana 45 millions yi ñu ko proposé woon noonu ñii xoola 10 millions sax boo leen ko proposé woon ñu joué le porno barki alxuraan gëmuñu dara gëmuñu ko caga yu bon yi. di wax ndax en tant que làmmiñu askan wi CNRA ak kilifa yëpp maanaam seen série bu bon boobu noonu nga xamante ni nii ñi ñuy def lancement bi ñu ngi wax maanaam autorités yi ñu censuré. film boobu noonu mu bañ a daw fii si biir Sénégal quoi parce que dal nañ sëkk si affaire de caga yi taat taat taat taat dëkk baa ngi gën a metti di umu ndax affaire de taat te genre caga yi kase gaama la sumuwaay ñoo um Sénégal nit yu bon yii nii man la sumuwaay yi ñi duñu dara tekkiwuñu dara duñu ay royukaay saawaay kenn waru topp ku bëgg baax boog man la sum waay leen sax lijjanti noonu la demee dafa fekk ni nag bu ñu defee dara pour yàq senegal ñun dinañ génn saa waaye xoola te yàlla rek a tax waxal dëgg te yàlla rek a tax dénoncé seen caaxaan yu bon yu ñu nekkee ki dafa di dara ci ñu yàgg ko tëddee kii ba doon dajale gaan la sum waay sulu yu mu encaissé gaan xanaa bu la ko doon konteel sax man la sum waay mun na fanaan ay une semaine di ko compter ñii duñu gat nekkuñu ko duñu ay sëykat duñu ay jigéen yu baax man la sum waa ji laa askan wi la nax noonu naa feq yi man la sum waa ji eh? xoola tous ñabe ngay but buti nii jëm leen a baax ngeen roy seen yaay ak si jigéen yu baax yi caga